kër Ndour daal moom tey moom gis ngeen li fi xewagoon manifestation bu boo xam ne daal tàng na jër macha allah ca suba ba tey depuis huit heures ba léegi ku fentum mi ngi jax di tàng jër waaw nee leen metti ci dëkk bi dafa metti ndox amut courant amul dara doxul ñu sonn Macky Sall na leen seen maire bi liggéeyu dëkku dara taxawaalu rek fi nekkee ak di jëndi oto di dawal moo tax gis nga gars nag nee nañ na seetaan bi doy na waaw nee nañ nag tey lépp day jeex lépp bañuñ ci dara mbalit mépp sotti nañ ko ci digg tali bi bi moo dem ba Mali gis nga ko ñu jaar biir Koumpentoum waaye tey benn oto tawul oto yëpp a oto yu mag yeeg yëpp benn oto demul benn oto demul gis nga waaw gis nga ko ni waaw Koupentoum tey mi ngi jax côté bii dañ koo taal gis nga ko ni waaw nañ tali bi yëpp waaw taal ko ay pneu amul dem amul dégg gis nga ko ni route nationale bi waaw route nationale bi moo dem tuun ma Mali waaye gis nga ni ko gars yi doxale mayuñ leen dara dara dara dara waaw manifestation Koupentoum moom xam naa li mu am bëriwul waaye tey na ni gars dañ cee xaw gar seen bakkan daal loolu ñu naan sama bakkan laa ci teg tàng na jër depuis huit waaw maa ngi ne jël dikk huit heures gis nga ko noonu mel na ni affaire baa ngi tàmbalee policier yaa ngi ñëw di leen mel ni di attaqué si waaw bu ko defee man ma toppal leen ko rek di arrière ale en attendant na lool gis nga ko nii ñooy daw di ñëw nii xam naa policier yi topp seen ginnaaw noonu di ñëw colisée yi signal bëre ngay seen mooy colisée yi quoi mais nag dañ leen a barré woon kenn fu ñu mën a jaar fii leen ko léeg-léeg dañu jékki-jékki rek mel ni ku bëgg a franchir seen kaw waaye boobu dafa mel ni amu doon xel bu barré tëli bi waaye yi barré nañ tëli bi ba xam ne oto yi tey départ ñoom seen tànk daal lañ mën a engagé jëm si ñoom te booy yi mel na ni pare nañ yor nañ seen matériel yi mat sëkk seen i xeer doy na sëkk moo tax police yi ba tey ñu ngi taxaw waaye ñooy guñu attaqué te xam nañ ne suñu attaqué seen tànk kese lañ mën a attaqué ah, gars yi ñu ngi wax ne dañoo wëri fële ndax dañoo wëri moo gis daw di dem ndax police yi dañoo wëri ñu bëgg leen a waaw